بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جلدي جناو bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi dellusi si neen pour fas yéene continuer waxtaan ci yonent bu màgg boobu nga xamante ni mu ngi bokk ci ulul azm mu di yonent yàlla Muusa yonent yàlla Muusa alayhi salaam ku ne xam na ne nit ku màgg la ndax borom bi moo ko màggal boole ko ci yonent yi gën ci juróomi yonent yi gën ci la bokk moom yonent yàlla Muusa mu nekk exemple ci wàllu muñ nekk exemple ci wàllu njàmbaar nekk exemple ci maandu nekk itam exemple ci bëgg ay mbokkam loolu lépp ku suivre histoire bi da nga koy gis ci moom nekk na exemple ci wàllu yu bari ba moo tax qualité yooyu la yàlla nemmeeku ci moom moo tax mu boole ko ci ulul azm mu mel ni ci ajjuma ji weesu gisoon nañ ne yonent yàlla Muusa alayhi salaam nekkoon naa tongoo yonentam bu mag bu ñuy wax Shuaib mu def fa itam formation bu am solo ginnaaw bi mu génnee ci loxoy Firawun nekk nag Shuaib lu tolloog fukki at ndax am na ñu ne juróom ñetti at moom la nekk ak shuaybu waaye yonent bi salallahu alayhi wa sallam li mu wax nee na daal nekk na ak shuaybu lu tolloog fukki at wante moom yonent yàlla muusa alayhi salaam li mu nekk ak shuayb ba ñu am juróom ñeenti at dafa am lu shuaybu wax ak moom daf ne ko jur gi ma la jox nga koy sàmm léegi benn at nga fi dese waaye lu jurati ci jur gi rekk yaa ko moom mu mel ni yonent yàlla Muusa am na benn xéewal gu rëy gu mu jële kër yonent yàlla Shuayb mu nekk mujizaam bi gën a rëy maanaam mu nekk miracle bi gën a rëy mu di benn yat yet bu nga xamante ni yonent yàlla Shuayb moo ko ko jox ndax yonent yàlla Muusa bi mu waree liggéey ci kër yonent yàlla Shuayb yonent yàlla Shuayb dafa amoon ay yet yu bari ci biir néegam mu yebal doomam ju jigéen ji ne ko duggal ci biir néeg bi nga indil ma fa benn yet joxal ma ko Muusa pour mu koy sàmmi jur gi waaye xale bu jigéen bi bi mu duggee ci biir néeg bi di jël ci benn ci yet yi pour indil ko yonent yàlla Muusa am na ca benn yet boo xamante ni daal su doon ne ci suñ jamono bi danga naan njuuma la ndax daal daf ne tëll rek yet bi daal di tëb rek tegu ci loxo yi mel ni lu daanu rek ci kaw loxo bi mu ne ah kon de xaaral ma yóbbul ko yet bi daal di génn jox yonent yàlla Muusa yet wi Shuayb bu ne ko déedéet waxuma la yet wi ndax yet wi sama alal la bokkul ci yet yi war a génn delloo ko xale bu jigéen bi daal di jëlaat yet wi delloo ko ca biir néeg ba di tànnaat beneen ci yet yi yet ba mu jëloon moom itam daal di tëbaat rek dalaat ci loxo ba mu génnewaat ko bi mu ñëwee Shuayb bu ne ko dama ne la delloo yet bi ndax yet bi bokkul ak yet yi ma la wax mu dellowaat ko di wat beneen yet yet bi tëbaat dalaat ci loxo bi ba muy ñett yoon mu ñëw nag ne ko bàyyi yet bi de nangul ma jël benn yet man daal fu ma jubee yet yi rek moom mooy ñëw taxaw sama kanam mu ne ko kon kii moo doon boroom ndax yet wi bi iblis yàqale suñu maam aadam ci àjjana ba yàlla génnee ko pour mu ñëw jóge ci àjjana dëkk si fii ci suuf yet wi la damoon ci benn garab indaale ko yet wi kon yetu àjjana la mu ne nag ñun yonent yi ñoo koy donnante moo tax ku dul yonent rek waruloo jël yet wi kon loolu junj la bu may won ni Moussa mii nekk ci sa kër yonent lay nekk foofu nag la yonent yàlla ay ba xamee ni yonent yàlla Moussa mii dana nekki ab yonent yonent yàlla Moussa yor yet wi yet wi nekk kéemaan bu rëy yonent yàlla Moussa kéemaan bu ne def na ko ci yat wi waaye ci juróom-ñeenti at yi nga xamante ni def na ko ak yonent yàlla Shuayb te yonent yàlla Shuayb wax ko ne ko lu jurati ci jur gi yaa ko moom ci at mi te yàlla bëgg na alalu yonent yàlla Moussa bari daf ne ko jëlal yat wi nga dóor ko ci ndox nga dugal ko ci ndox mi jur gi di naane yonent yàlla Moussa daal di jël yat wi dugal ko ci jur gi ku ci naan tey nekk xar mu jigéen wala ngay béy wu jigéen wala ngay nag wu jigéen boo naanee ci ndox mi rek at ma jur nga ca ñaari yoon loolu mu jox yonent yàlla Muusa alal ju bari moo tax ba mu fa amee fukki at nag ca la ko may doomam jooju nag am na ñu ne ku mag ki la ko may am na ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay werante waaye daal may na ko kenn ca doomam yi léegi nag ñu war a jóge yonent yàlla Moussa tàggatoo ak yonent yàlla Shuayb ne ko nag maa ngi dellu Égypte waaye nag e, li muy wuti moo di dama bëgg sama mbokk mu ñuy wax Haarun ma génnee ko ci buur bu kàccoor boobu ndax buur la boo xamante ni buur bu kàccoor la bëgg naa daal gisante ak samay mbokk kon maa ngi dem mu daal di jël nag lam fa amoon ci jur jël soxnaam daal di génn dëkk bi nag wala dem ñu ne moom la alquran wax ne falamma qada musa al ajala saara bi ahlihi et musa jóge na madian منفصلا من أرض مدين وكان في أيام الشتاء ومعه امرأته وأغنامه وهي في شهرها لا تدري أتضع ليلا أم نهارا موسى بمؤنك جرجي ànd ak soxnaam jóge Madyana war a jëm Misra amoon na ak jaaxle lool ci soxnaam ndax soxnaam dafa ëmboon ba toll ci weeram xamul guddi la war a mucc wala bëccëg foofu nag Moussa jaaxle fa lool ba benn guddi mu di guddi ajuma mu sedd lool sedd bi ànd ak taw bu metti et ba Moussa jaaxle ànd ak xiin ak dënnu asamaan si ñuul kukk Moussa mujj réer xamatul fan la jëm ci loolu mu jékki-jékki commencé taw soxna si itam matu jàpp ko ba yàlla dogal itam mu mucc waaye amul nag safara suma jaaroo ndax sedd bi metti na ci jamono boobu nag Moussa fu nekk mu ngi fay sànni bëtam di xool fan la war a jële safara pour soxnaam si war a jaaru moom ak liiram bi loolu defoon ci moom ak jaaxle yonent yàlla Moussa alayhi salaam di jël ay xeer di ko fëggalante pour safara mën cee génn waaye bu ko defee rek dara ci safara du génn fekk boobu am na lu yàlla nam فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نورا فحسبه نارا فقال لأهلي لأهله أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونت يالا موسى نيك نا جاخلم غوغو سي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بني واخ تورو سينا mu gis fa safara bi mu yaakaar ne mu jis fa benn leer mu yaakaar ne leer googu nag safara la mu daal di wax nag soxnaam si ne ko nag toog leen ngeen xaar ma fii toog leen ngeen xaar ma fii ndax lële ma séen daal dafa mel ni safara la xaar leen ma ma dem wuti fa xal boo xamante ni danaa ko mën a boyal pour ngeen mën ci jaaru wala su fekkente ni awma fas xal sax mën naa fa gis nit ku baax koo xamante ni dana ma won yoon wi tegtal ma fu ma mën a jaar ndax fu mu ne nii dañoo gëlëm ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Muusa ñëw na ba tiim safara wi te moom safara la ko jorte woon waaye leer la bi mu ñëwee ba tiim leer gi la dégg benn baat bu ko woo moom la alquran wax ni fa lamma ataaha nudiya ya Musa, bi mu ñëwee ba taxaw rek ci leer googu leer gaa ngi nekk ci benn garab garab goo xamante ni leer gaa ngi ko jóge kaw jóge kaw asamaan nekk leer gu yanj waaye leer gi nag amul saxaar gisul itam matt muy jër jëri waaye leer la goo xamante ni rek leer gu foor la yent yàlla musa alquran nee na bi mu ñëwee ba tiim leer gi am na baat bu ko woo baat bi nag lii la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk faxlaana alayka innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa baat bi daf ne ko man maay sa boroom su mil sa ñaari dal ndax yaa ngi ci barab bu laab te sel xam nga yonent yàlla Muusa wax am na ne li tax yàlla summiloo ko ñaari dàllam moo di ni ñaari dàll ya daf ko dagge woon ci deru mbaam bu medd te e, der buñ ko wulliwul du laab waaye buñ ko wullee rekk laab na looloo tax yàlla nag ne ko barab bi nga taxaw dafa laab te dàll yi nga sol laabul ndax yaa ngi ko dagge ci deru mbaam bu medd te kenn wulliwu ko moo tax mu ne ko faxlaan alayk innaka bil waadi al muqaddasi tuwa yent yàlla Moussa daal di summi dàll yi am na sax ñu bari ñuy wax ne e, yeneen nit boo ko soppee bu mu ëpp ndax bokk na ci daraja ji yonent bi ëpplee moroomi yonentam yi mooy ba ko yàlla di ci ca arash yonent bi dàllam la duggaale waaye yonent yàlla Moussa ci ab montagne leen ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summi say sa ñaari daal waaw wa bi tuuri Moussa nuudi yaxla wa ahmadu fawqa al arshi lam yuzan bi xalci niaali waaye kooku day wane rek ne daraja yi ñoo tolloowul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy soppe yàlla waaye Moussa nag eh, waxandoo yàlla la moo tax yonent bi da nga naan xabiballah Moussa nga ne kalimullah yàlla nag ne ko dama la bëgg def ab yonent wa ana axtartuka fastami lima yuuxa dama la bëgg a def ab yonent kon déglul li ma lay wax إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ko man ما yàlla te amul benn buur bu dul man mu ne ko jaamu ma te itam na nga saxal julli pour di ma fàttaliku xamuloo ne julli ki koy def day fàttaliku boroomam waaw tey fàttaliku sa boroom nag benn xéewal ëpp ko moo tax mu ne ko wa aqimi salaata li dikri mu ne ko ndax àdduna bi amul benn solo àdduna la boo xamante ni li fi nit ki di sax bariwul te léegi mu tukki xam nga yàlla ay junniy junniy at ci moom comme benn bis xoolal ba mu waxee yonent yàlla Moussa ne ko àdduna bi léegi mu tukki ak diggante digganteeg yonent yàlla Moussa li fi dox ci at bari na te ba léegi àdduna bi tukkeegul te itam ñun ñoo gën a jege àdduna bu tukki te yëgaluñ ko sax suñu yaram yàlla wax ak yonent yàlla Moussa ne ko inna saata aatiyatun akaadu uxfiiha li tujza kullu nafsin bi ma tasaa mu ne ko ndax bis pénc wér na ni dana ñëw presque sax ñëw na te bu ñëwee dana fay bépp bakkan la mu jëfoon xam nga yàlla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax na itam nit ki jëf mu ëpp doole ci moom leneen yàlla wax na suñu euh, wax na yonent yàlla Moussa ne ko daal adduna bi adduna bu ñàkk solo la adduna la boo xamante ni léeg mu jeex kon bul ñàkk fayda ba kenn yàqal la yiwu àllaxir fala ko anha man laa yuminu biha wattabaa hawaahu fa tarda mu ne ko bul ñàkk fayda ba koo xamante gëmul dara amul dara ci pas-pas nit koo xamante jaamu kanam la xalaatam guddul xelam yaatuwul lu dul bëgg-bëggam ak xalaatam ak ay namm-namam yépp daf ko yemale ci àdduna kooku bul ko def àndandoo bum la gàllankoor ba nga fàtte àllaaxira ndax bis la boo xamante ni la ca des bareetul lépp mu ñëw mu ne bul topp nit ku alku kooku mu mel ni yàlla bi muy wax ak yonent yàlla Muusaa ci jamono boobu yonent yàlla Moussa mu ngi yor yet woowu nga xamante ni yet wu yéeme la yàlla moom xam na cosaanu yet wi te itam bépp kattan bu nekk ci yet wi wala bépp kéemtaan bu nekk ci yet wi mu ngi jóge ci borom bi yàlla laaj ko nag ne ko wama tilka bi yaminika ya Moussa waaw li nga yor ci sa loxo lan la qaala hiya asaaya atawakka alayha wa ahushu biha ala ganami fii waliya fiha maaribu uxra yàlla ne ko e, lu nekk ci sa loxo ndeyjoor yow Muusa mu ne ko sama yet laa ci yor sama yet la nag boo xamante ni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci laa leen di bàccal ay xob pour ñu mën ko di lekk am naa ci itam yeneen i aajo yoo xamante ni maa ngi koy jëfandikoo ci yet wi wax neen yet wi sax bu muusa eh, demee ba am ak jaaxle sax ci fan la war a jaar léeg-léeg yet wi dana wax ak moom ni nit di wax ak moom kon yet wu yéeme la wax ne ne bu tëddee di nelaw itam lépp lu ko jublu si lu jëm ci wàllu jaan wala gaynde wala segg lépp loo xamante ni noonu nit la jëmoon ci yonent yàlla Moussa yet wi mooy jóg soppaliku jëmm xeex ak rab boobu ba mu dem moo tax mu ne ko waliya fiha maaribu uxra fekk itam yàlla am na benn miracle bu mu bëgg a wane ci yet wi qaala alqiha ya muusa fa alqaaha fa ida hiya xayatun tasaa qaala xuzha wala taxaf sa nuciduha sirataha al ula yàlla ne ko sànnil yet wi yow muusa muusa daal di jël yet wi sànni ko waaye yàlla nee na bi mu sànnee yet wi nee na yet wi nekk na jaan ju rëy joo xamante ni mu ngi dox yonent yàlla Moussa daal tiit daal wëlbatiku mel ni koy daw yàlla ne ko déet Moussa bul daw yow kat ku ñuy musal nga ci ayu jaan ji ñëwal xusha wala taxaf jël ko jël ko te nga bañ a ragal Moussa xaw a parce que jann la jo xamanteni ni ëpp na nah montagne ndax reuy mu ne ko sa sirataha al ula su ko jëlee day delluwaat nek yat comme nang ko yore won ci sa loxo Moussa di wolu boromam daal di daw songu yet wi rek melni lu ko naj mu delluwaat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw daal di jàkkaarloog borom bi xam ne yàlla rek mën yàlla ne ko des na beneen miracle ne ko wat mum yadaka ila janaxika taxruju baydaa min gayri suin ayatan ukhra yàlla ne ko jëlal sa loxo nga dugal ko ci sa poche soo ko génnee loxo bi dana am leer gu fés bu ciy génn kooku itam beneen miracle la boo xamante ni dama la ko jox mu nekk ngànnaay ci yow yàlla ne ko nag li nuriyaka min ayatina al kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nag ci suñu kéemtaan yu rëy yi waaye fekk boobu yàlla am na lu namm ci yonent yàlla Muusa te jamono bi muy wax ak moom yépp wane wanu ko ne ko dama la bëgg a yónni ca Firawn waaye yàlla jékki-jékki rek ne ko izhab ila firawna innahu tagaa mu ne ko dama la bëgg a yónni ci firaaw na ndax dafa beew dama ko may alal jox ko nguur moo tax beew na jàppe na boppam ne moom mooy yàlla dama bëgg nag nga dem fa wax ko ne ko du dara ku ñu yilif la te man maa ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di seen sang rek ma dogal ko jox ko ngëneel googu waaye gënu leen ah waaye yonent yàlla Muusa bi ko yàlla waxee lii moom xawoon na am lu mu tiit ci boppam moo tax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa axaafu an yaqtuluuni mu ne ko sama boroom mën di foofa dama faa reyoon ab bakkan te damay ragal itam bu ma fa demee ñu rey ma mu ne ko beneen bi ci des itam sama làmmiñ dafa xaw a dotoom ndax weñ ga ma ba ma nekkee xale dama jëloon sama làmmiñ teg ko ci weñ gu tàng weñ gu tàng googu mo lakk sama làmmiñ ba léegi sama wax setul dafa xaw a taq tuuti mu ne ko wa axi haaruna huwa afsaxu minni lisaanan fa arsilhu maaya ridan yusaddiquni inni axaafu an yukadzibuni mu ne ko yebalal sama frère boobu ñuy wax haarun ndax moom ku éloquent la làmmiñam set na te itam waxam neex naa dégg te moo ma gën a set làmmiñ mu ne ko yebal ko mu ànd ak man su ko defee nag mu nekk sama secours di ma dëgëral di ma dëggal di ma jàppale ndax ragal naa ñu fen loo ma te bu boobaa sama làmmiñ du set pour mu mën a gën a layal sama bopp yàlla ne ko sa nashuddu adudaka bi axiik mu ne ko kon danaa la jàppale gën la dëgërale sa mbokk moomu ñuy wax Haroun waaye boo déggee ñu ne yonent yàlla Moussa ku bëgg mbokkam la et eh, ba yàlla waxeek moom mënoon naa seet keneen waaye mbokkam la tànn te itam boo dee xool mbokk alalu yàlla la kenn defu ko yàlla ci boppam moom moo ko def te itam naf na ci mbokk ndax dañu wax ne garab garab et eh, balaa jox kenn ker jox ka toog ci suufam ndax moo ko gën a jege kon balaa ngaa jël sa ngëneel di ko jox keneen jox ko say mbokk ba pare parce que ñëw la gën a jege moo tax moom yonent yàlla Moussa alayhi salaam bi ko yàlla yónnee dafa fexe ba message ba mu boole ca mbokkam moomu di Haarun mu delluwaat moom yonent yàlla Moussa wax ak boroomam di ko tawat wan ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jàppale ko ci mission bi sino rek du dem fenn mu ne ko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال qad uutiita su'laka yaa Muusa Muusa ne yàlla maa ngi lay ñaan nag nga yaatal sama dënn te leeral ko ba luñ ma wax ci kàddu safaan mu mën ko supporter xamuloo ne kuy wooteel yàlla kàddu safaan bu nekk danga ko dégg waaye bu yàlla yaatalul sa dënn danga xëy na waqet daw moo tax képp koo xam ne yaa ngi taxaw di wooteel yàlla bul bañ ku la ca wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ca jëflante géew jëflante bu ñaaw waaye jàppal ne rek yàlla ngay wooteel yaatal sa dënn ñaan yàlla itam yàlla yaatal sa dënn moo tax yonent yàlla Muusa wax boroomam ne ko rabbi shrah li sadri yàlla yàlla nga yaatal sama dënn ba ma mën a supporter lu ne wa lii am amri yàlla itam nga yombal sama mbir waaw lépp lu ma dugg yàlla nga ko barkeel ba ma am ca ndam lu waxlul uqdatan min lisaani fas-fas bi nekk ci sama làmmiñ te weñ nga defoon ma ko weñ gu tàng googu ba tax sama làmmiñ setul yàlla nga ko fecc ba mu set bu ko defee yafqahu qawli ñu mën a dégg nag li may wax te maa ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu ànd ak man di ma jàppale te kat ministre ba nag na nekk sama mbokk waaw te choisir naa sax nga tànnal ma Haroun ndax sama frère la ñoo bokk ndey ak baay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defee ñu mën a ñu mën la jaamu jaamu di la sabal sabal gu bari di la mën di fàttaliku itam lu bari ndax wér na ne yow fu nit nekk rek yaa ngi jàkkaarlook moom xam nga na mu nekke loolu maa ngi la koy ñaan bi mu waxee ba kàddoom daanu yàlla ne ko nag qad uutiita su'laka yow Muusa li nga doon ñaan may naa la ko moo tax ñu ne yonent yàlla Haarun fa mu toogoon ca Égypte mu ngay dégg kàddu ya nga xamante ni yàlla mu ngi koy waxanteeg yonent yàlla Muusa foofu la yégée moom itam nekk na ab yonent waaye proposition bi mu ngi jóge ci yonent yàlla Muusa moom moo ñaan pour yàlla def frère boobu

mu di firawn te buur la boo xamante ni defe na ne mooy yàlla ji gën ci yàlla yi ndax wax ne ne yonent yàlla Muusa euh, euh, firawn e mosul feebar daawul sëqat ñandu sax daawu ko def amul dara loo xam yow sax daawu ko mat loolu yàlla def ko lu dul rek jay ko gis nga bi mu toogee ba jikki moom yonent yàlla moom euh, firawn mu jékki-jékki ne ana rabbukumul aala mooy seen borom bi gën a màgg iblis tiit na tiit boo xamante ni dafa daw si ñëw ba ci na ne ko ah firawun wax bi nga wax rëy na de nga ne yow yaay borom bi gën a mag li nga wax rëy na de firawun ne ko ah eh, kon mu tuub ko iblis ne ko ah aajawu ko waaye sa wax bi rëy na de nga xam ne kon yonent nga xam ne kon firawna àggoon na ci ak kàccoor foo xamante ni yéemul woon def dara yàlla nag di wan yonent yàlla Muusa comme foofa la yaroo te xam ne itam jikkoy firawn yàlla nag ne ko am na fu ma jaaroo nag yow lu jiitu bis bi maa ngi lay fàttali nag maa ngi lay fàttali jaar-jaar yooyu nga bàyyi ko xel ba su ma la waxee ne la danaa la jàppale nga gëm ko ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فاقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني mu أمن أي خيول yu la jaarale mu ne ko bi nga nekkee liir te sa yaay jaaxle nee na man yàlla maa wax ak sa yaay ne la ne ko sànni ko ci géej jël ko nga def ko ci kees sànni ko ci géej man danaa ko sàmm ba delloosil la ko la mu far ci bakkan ci bakkanu liir bari na ngir wut la yow ma jël la teg la ci ñaari loxo mu téye la te mënul la dara ma jël bayre sànni ko sa kanam ba ku la gis sopp la mu sopp ba bëggulaa rey mu ne ko kon su ma nee la danaa la jàppale nga war ko mën a gëm mu ne ko na nga fàttaliku itam is tamshi uxtuk is tamshi uxtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakfuluhu فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا يلا نيكو فاتلي كوليتم بس مجدو جيجين جوجني وخ مريم تخوي تبوبا نيجي وركولا نامبال نانغولو نامبوينو كان تلولو ماكو كو اندي ساويان رك nee na ma dëddale la ak ween wow lépp pour bëgg la delloo rek sa waajur ndax loolu laa chartante woon ak moom ba Mariam taxaw ne gis na koo xamante ni bu ko ëndee liir bi dana ko nangu ba ñu sonaloon ko ci fitnaal ko ne ko dafa am lu mu bokk ak yow moom Mariam moom ma fexe ba def ci moom lay wu jub mu lay ba génn ci ba sa yaay ñëw nàmpal la nga nangu ñu nar ko téye ca pale ba mu bañ ma fexe ba nga delluwaat ci ay loxoom nekk ak moom ci kër gi nga dellu siwaat kër firawna firawna yar la ba nga am fanweeri at nga jóge fa dem mat yena nekk ak Shuayb lu tolloog fukki at muy ñeent fukki at ma def la yonent kon kala sàmm ci jamono boobu bu la joxee message dana la sàmm ba dara du ko yàq moo tax mu ne ko fa labista sinina fi ahli madiana summa jita ala qadrin ya Moussa yàlla nag ne ko comme nag léegi mat nga góor mat nga góor te itam école yi mu la dugal école yu mat école la mu ne nag léegi wastanaatuka li nafsi tey tànn laa na tànn naa la pour sama bopp dama bëgg nag liggéey ak yow dama la bëgg a def ab yonent mu ne ko kon te ñaanoon nga sa frère boobu di haroun bokk ak yow message bi jàppale la kon idhab anta wa axuuk idhab anta wa axuuka bi ayaati wala taniya fi dhikri ila firaun innahu فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ko قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى yàlla wax yonent yàlla Moussa ne ko demal yaag sa frère bi jox naa leen nag ñaari miracle yu am doole mu ne dem leen ci na ndax dafa beew ngeen wax ngeen wax ak moom nag wax ju yarute nooy ndax kilifa la fii alquran mu ngi jàngale ak yar nit ki lu mu kàccoor kàccoor kàccoor la lislaam santaane mooy nga jëflanteeg moom ci yar moo tax yàlla ne bu ngeen demee na ngeen jëflanteeg na ci yar kàccoor na waaye kilifa la jëflante leen nag moom ci yar noyal leen seen kàddu ci moom fa quulaa lahu lay layyinan mu ne ndax wax ju nooy jooju mën na tax moom mu waaru ca ba doxe ca ragal ma wax leen ko ne ko moom du dara nit la rekk dafa am ku ko yilif te man maa ko yilif te amul benn buur bu dul man Muusa ak Haruna wax yàlla ne ko yow suñu boroom ñun de dañuy ragal mu jéggi dayo ci suñu kaw jalgatiñu gaaññu ndax ko beew la te bon yàlla ne leen bu leen ragal ndax maa ngi ànd ak yéen di dégg di gis dem leen ci moom ngeen wax ak moom ne ko ñun ay ndaw lañu yàlla ñu yónni li ñu bëgg nag mooy mu yebal banu Israil bàyyi kook ñun ndax ay nit lañu yu tedd yoo xamante ni ñu tedd leen jur ndax Ibrahima mooy seen maam Isxaqa mooy seen maam Yaquba mooy seen maam Ismaila mooy seen maam Yuusufa mooy seen maam nit ñu tedde noonu kenn du leen tedde di te itam gëmuñu ko dul yàlla mu jàpp leen def leen ay jaam di leen jaamuloo loolu jaaduwul wax leen Firawna ne ko moom mbindeef la rek kenn waru ko jaamu na bàyyi gor yi mu jël def leen ay jaam e dem leen ngeen wax ko loolu te mu bàyyi itam mbugal bi mu leen di mbugal su fekkee lànk na wax leen ko ne ko nag indil nañ la nag ay miracle yu am doole te nag njub ak jàmm kenn du ko am te ragaloo sa boroom su bëggee am jàmm na ragal boromam dellu ci boroomam wax ko itam ne ko lii ñuy wax du lu ñu fent inventé wuñu ko yàlla moo ñu ko jox yàlla ñu déy nañu dem leen ngeen wax ak firawn te képp koo xamante ni nag jooyoo nga kàddu yàlla ëllëg yàlla dina la mbugal mbugal mu metti waaye ñoom ñaar bi ñu déggee kàddu yooyu kële mu nga Égypte kii mu nga Palestine ca wetu Cham ca tuuru Sina taxaw ca kaw montagne ba ca albuqaatul mubaraka nekk fay waxtaan ak boroomam bi yàlla waxeek Moussa ci kàddu yu sell yi ci la tàggatoo nag ak moom jox na ko message bi moo tax fa lamma nazala Moussa an il jabal baada munaajaati rabbihi shajaathu almalaika bi nga xamante ni Moussa wàcc na ci montagne bi ginnaaw bi mu déeyanteeg boroomam kàddu yu sell yi am na nag mbooloo ci ay malaaka yu ko gunge moom yonent yàlla Moussa waaye njabootam nga fa mu leen bàyyi woon ñu ngi fa toog rek benn sàmm daal moo doon sàmm ba romb leen xàmmee leen xam ne ñii ñu nga dëkk Madiana mu ànd ak ñoom nag wan leen yoon wi delloo leen ca Shuaib ñu toog ca ba nag Moussa moom war a e, dem Égypte pour def e, ndigal li nga xamante ni boromam sant na ko moo tax bi ñu ñëwee moom Moussa Haruna mu ngi ko kar ci tefesu niil bi mu di dex googu ñuy wax niil ci Égypte fa ñu tasee bañ fa tasee nag ñu ànd dem nag ci seen yaay fa ñu reeree fa ñu fanaan bi ñu xëyee suba nag ci la dem nag pour ñaan audience nag ak Firawn waaye moom Firawna bi nga xamante ni wax nañ ko ne ko am na daal ñaari waay yu taxaw ci bunt bi ne dañu bëgg a gise ak yow ñooñu sax daf ñu xaw a niru ne Muusa no dafa ni Muusa la sa doom ji fi nekkoon mu na ñu ne ko waaw mu nekkoon wax leen ñu dugg si ba nga xamante ni dugg si neen ñoom te moo di muusaa ak Haarun Muusa xawoon na am ak tiit gu mu yëg ci xolam ba tax na dafa ñaan boroomam wan ko ne ko itam xam naa ne yaa ngi may jàppale waaye duma dañ itam ci di la ñaan nga xam ne yeneen yi yàlla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nekk waxtu wu nekk saa su nekk di ñaan seen borom nga xam ne kon ñaan nga naayu jullit la ñu ne bi mu taxawee ci kanamu firawna moom Muusa lii la wax daf ne laa ilaha illa allahu alxakimu alkarim laa ilaha illa allahu alaliyu alazim subhana rabbi alsamawati alsabi wal ardina alsaba وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانجي لتيت من يكون تخلم دال دي دنج بسيت ويتش مو في الوري فور من يكار فرعون كاتشور بوري بوب فور من وقتانك مومي wax nañ ne ñaan gi képp koo xamante ni tiit nga wala nga jaaxle nee na soo ko ñaanee tiit nga dana dañ bu fekkee itam am nga kuy tiit soo ko ko bindalee tiit ga mën naa dañ ci moom ñu ne itam ku ko faral di ñaan sukuraat méttitu sukuraat du ko yëg bi nga xamante ni Firawna recevoir na leen ñu war a waxtaan Firawna dafa laaj Moussa ne ko man ant yow yaay kan فرعون موسى نيكو انا رسول رب العالمين من نو بروم من دي فيلا فرعون داري كوي ستنتال خول خول يونت يالا موسى خولات خولات با خامني كي موي خالي بيمو يارون تي بير كيرغي مو نيكو الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين mu ne ko yow xanaa du yaay Moussa mu ne ko aha mu ne ko xanaa yaruñu la woon fii nga nekk xale bu ndaw nekkoon ku doyadi Moussa ne ko waaw mu ne ko nga toog fi ay at ci ñun nga nekk kook ñun Moussa ne ko waaw mu ne ko nga def fi sag njaajaan njaay rey fi nit ñu lay wut nga daw ba pare dellu si nag di wet di man sama yàlla waaye Moussa lii la tontu Firawn mu ne ko faaltuha idan wa ana min addaalin fa farartu minkum lamma xiftukum fa wahaba li rabbi xukman wa jaalani min almursalin mu ne ko bi may def bi may rey nit ki dama ko reyoon ci kaw cànkute dama juum rek waaye aw ma woon intention rey ko ndax man duma rey nit yow nag ay bakkani bakkan nga tëral di ko rey man benn nit rek laa rey mënuloo ko fàtte mu ne ko nag ba ma demee ba xam ne ay kàccoor ngeen xeeb ngeen li ngeen def te naw ngeen li ma def te man li ma def ci kaw njuumte laa ko def te yéen li ngeen doon def ci kaw tayef ngeen ko def ma ragal ngeen gaañ ma ci laa daw nag génn dëkk bi bi ma demee yàlla may na ma nag xam-xamu xam mi dëgg ak neen fa wahabali rabbi xukman bi ma ko mayee ba pare nag la ma def nag ma di ndawam mu yónni ma ci yow mu ne ko itam lii nga may ñaaxe naan ma maa la yoroon fii di la dundal di la jox ngay lekk lu ne maa la ko defal fii ba nga mag bëgg a taxaw weddi ma loolu yow yaa ko njëkk a def yow yàlla bind la te doonaguloo woon dara yàlla considéré la bind la jox la nguur te amula woon dara bi ngay juddu ëndaale fi dara yàlla jox la ay xéewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow yaay yàlla jël ko teg ko fële yow kay yaa njëkk a weddi xéewal mu ne ko ci xéewal gi nga ma doon defal fii ci mbubb yu rafet yeeg dëkkuwaay beeg jàmm ji ma fi amoon ci kër gi yépp mu ne ko nag loolu sama alal la mu ne ko ndax yaa jàpp samay mbokk ñu di ay gor nga def leen ay jaam di leen liggéeyloo coono bu nekk nga teg leen ko alal jooju nag nga yaakaar ne lew na la alal jooju man la lew ndax samay mbokk liggéey mu ne ko te yemuloo woon sax ci liggéey liggéeyloo leen sàcc nga seen alal te itam doon nga leen rey di leen ñàkkal fayda di leen doyadal Firawna daal di xam ne Moussa yey na ko ci côté boobu mu laaj ko nag ne ko waaw wama rabbul alamin lan mooy kan mooy borom mbindeef yi ki fi tudd léegi ne moom mooy borom mbindeef yi kan la ban borom nga fi yaakaar bu dul man Moussa ne ko rabbu samawati wal ard wa ma baynahuma in kuntum muqinin mu ne ko ki moom juróom-ñaari asamaan moom juróom-ñaari suuf moom la nekk ci diggante bi kooku moom mooy boroom mbindeef su fekkente ni am ngeen kóolutegu wér ci ne kooku moo di yàlla kooku de mooy borom mbindeef yi firawna ne ko firawna wax ñi nekk ci wetam ne leen ala tasmaun xanaa déggu waa ji ah ji de moom dëgër na fit dégg ngeen kàddu yi muy wax Moussa ne ko sama fit ëpp na foofu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin waxuma sax mooy borom mbindeef yi waaye yàlla moomu moo moom moom sa baay moom sa maam moom sa maamaati maam loolu nag merloo firawna firawna daal di jóg fëgg dënam ne inna rasulakum alladi ursila ilaykum la majnun maa ngi leen di yëgal ne seen yonent bii nga xamante ni yónni leen ko ci yéen ab dof la kii wérul de man lay wax kooku moo moom moom sa baay kii xamante na de Moussa ne ko firawna maa ngi lay yëgal ne kooku rabbul mashriqi wal maghribi wa ma baynahuma in kuntum taaqiluun kooku moo moom penku moo moom sow moom moom la nekk ci diggante penkook sow su fekkente ne boroom xel nga di xalaat yaa ngi ma jàppee dof mais yaakaar naa ne yow mi yaay dof ah firawna daal di wax Muusa ne ko la in ittaxasta ilahan gayri la ajcalannaka min almasjunin mu ne ko giñ naa ne yow bis boo fi jàppee beneen yàlla bu dul man di ko wut wala nga bëgg ko gëmloo nit ñi mu ne ko danaa la jàpp tëj Moussa ne ko awal awalaw jituka bi shay'in mubin xanaa kon dama la indilul miracle boo xamante ni miracle bu wér la buy wane ne yow mënaloo ma dara firaaw ne miracle yow Moussa kañ nga fi jóge bay xam man loo ma mën a jaaxale ne ko fati bihi in kunta min as-sadiqin mu ne ko indil miracle bi bu fekkente ni dëggu nga ci li nga wax indi ko fekk boobu Moussa àndut ak dara lu dul aw yatam fa alqaa muusa asahu fa ida hiya thubaanu mubin muusa daal di sànni yet wi yet wi nekk nag jaan ju wér joo xamante ni du jaanuk njibar waaw jaan gu wér la xam nga jibarkat yi bu ñu yoree yet sànni ko wala buum mu nekk jaan yow yaa koy jorte jaan fekk sa bët lanu jibar ba sa bët di ko gisee ak jaan waaye aw yet rek la waaye nag pour wane ne Moussa jibarul mais dafa def lu wér loo xamante ni parce que wax nañ ne e, am na yu wàcc fii ci kaw suuf te amuñu ndey ak baay ñu ne Adam ci la bokk Adama amul ndey ak baay noonu rek la ko yàlla bindee Xawa amul ndey ak baay noonu rek la ko yàlla bindee yetu Moussa ba itam noonu rek la la ko yàlla bindee waaw. jaan ji nga xamante ni yet wa doon na ko ak jaan jaan ju wér la waaye yàlla def ko bind mu nekk jaan te amul ndey amul baay na mu bindee aadama ak xawaa rek la ko binde kon moo tax alquran wax ne fa ida hiya thubaanul mubin nekk jaan ju wér joo xamante ni kenn werantewul ak jaanam bu la mattee fokk ñu lugg ko buñ ko luggul nga génn àdduna waaye jaanu njabar moom bu la mattee dara bi mu sànnee yet wi mu nekk jaan dafa ubbi gémmiñam qad mala'at ma bayna janibay al qasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madina min madinati misra ra'saha bi jaan ji ubbi gémmiñ gi ba tek sikkim bi ci suuf yëkkati tuñ bi ci kaw neena presque xaw jël palais firawna bi dugal ko ci gémmiñ gi wan na ko ndax jaan ju rëy te yaatu gémmiñ ba wax ne ne képp koo xamante ni sax yaa ngi woon ci biti dëkk ba nee na gis nga tuñam wa ca kaw mu mel ni tey bu doon ndakaaru la boo tolloo jam ñaajo yaa ngi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tànk te itam bu dee taxaw ci geen bi lay samp rek taxaw ba fu nit nit toll rek gis ko mu nekk jaan ju rëy ju yéeme jaan ji daal di wàcc rekk raam wuti firawn firawn na daal di daw xel yu rëy daw ba fàtte ne sax buur la daal wax Moussa ne ko jëlal sa jaan ji jël ko jël ko waaw xaw saalit Moussa daal ñëw daal di jëlaat jaan ji taxaw firawn na daal di xool Haamaan mel ni daf ko déy ne quoi sa waa ji moom doy na waar lii mu def moom yéeme na de ah man dama yaakaar ne Moussa yàlla ji muy woote dëgg la daal dama dama dama dama ko war a gëm rek ànd ak moom Haamaan ah, ni ko déedéet yow ëpp nga loolu yow nga nekk yàlla ñu jaamu la ay ati ati ati at sa nguur di dox lépp di dox dara wàññeekuwul kii nga yar ko fii barki démb rek lay ñëw indil la ak njabar nga yaakaar ne yàllaa ko yónni ah yow nag nekkuloo koo xamante ni danga war a toppaate mais yow dañ la war a topp ah firawna daal di deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan buur aayul waaye dak yaa aay waaye bu doon firawna kese la moom dana tuub waaye Haamaan nekk nit ku doy nekk nit ku doy waar fu firaaw na dawee wutik njub rek dana fexe ba gàllankoor ko yàlla xam ne itam am na obstacle bu nar a gàllankoor firaaw na ba du gëm mu wax ak Moussa ne ko wax ko ne ko comme ngóor la bëgg mën naa ko may mu dundaat ay at yu bari ma delloowaat ko ak ndawam mu nekk xale bu ndaw ba pare itam ma gën a neexal ngóoram Moussa daldi koy wax Firawun ne ko sama borom de nee na mën na laa delloowaat nga nekk xale bu tuuti mu gën a neexal sa nguur ci kaw bu fekkente ne rek gëm nga ko Firawna daal di ciy waxtaan ak Haman Haman ne ko déedéet ah nit kay mën naa nekkaat ndaw bu dee nekk ndaw la rek moom mën naa ko wax nañ ne moom Haman moo njëkk a utiliser li ñuy wax ñuulal mu daal di dem composer ay mbir daal di ciy defar ñuulal fekk na dafa bijjaawoon ndax firawna dund na lu ëpp ñaar téeméeri at ci nguuram nga xamante ni kon ku guddoon fan la mu daal di jël ñuulal bi daal di ci ñuulal kawaru na ba mu rafet mu daal di koy jox seetu mu seetu mu ne ko xoolal nekkaat nga jeune nekkaat nga xale bu ndaw mu ne ko lii ak njabar la rek buñ la bëgg a naxe waaye yow yaay borom bi loolu nag tax na firawna wax ak yonent yàlla Muusa ne ko nag léegi xam naa ne danga ma indil ak njibar danga ma indil ak njibar waaye nag danga xam ne daqooma njibar léegi nag jox ma bis ñu daje ci su ko defee nag léegi ñu concurrence maag yow ci wàlluk njibar Muusa ne ko mawidukum yawmu zina wa an wa an yuxsara annaasu duxan wassalaamu ala man ittaba alhuda mu ne ko e, bis bu ñuy tuddee ñu am na ñu koy tuddee Nayruuz mu di bis bi njëkk ci at mi am na ñu ne sax bisu tam xarit la mu ne ko feet la goo xamante ni feet gu rëy lay nekk nit ñëpp a koy feetu e, bis boobu mooy sama rendez ak yow mu ne ko nit ñi danañ ci bari su ko defee ñu woon nit ñëpp invité leen su ko defee ñu jongante nag ci wàllu njibar yow njibar ngay indi waaye man li ma indi du ak njibar man yàlla ma yónni foofu nag la firawna daa di yebal ay nit nag ñu dugg ci àll bi waaye boobu côté Cham mu di côté Syrie ñu ëppoon lu ñuy utilise ak njibar mu dem fa jël fa lu tolloog ñetti junni ay jibarkat gis nga jibarkat yooyu biñ leen waxee melokaanu yonent yàlla Muusa am na ci ñaari jibarkat yoo xamante ni ñoom ñoo doon sëriñu jibarkat yi ñoom seen wayjur moo leen jàngaloon jibar seen wayjur boobu wax neen ne dafa faatu ñoom ñaar nag dem neen ca bàmmeelam am ay mbir yu ñu def daldi di woo turu wayjur wi wayjur bi daal di wuyu ci biir bàmmeel bi ñu ne ko ñun de Firawna daf fi yónnee ne dafa am benn waaye daal bu ñëw di ko wax ne ab yonent la ba daal benn yet la yor yet bi bu ko sànnee mu nekk jaan moom nag dafay yeble ci ñun ne dañu ñëw dimbale ko ñun nag xamuñu waa ji yonent la bu yàlla yónni wala ab jibarkat rek la ki ci biir bàmmeel bi moo leen tontu ne leen ñaar de xam naa ko su fekkent ne ñoom eh, ñoom ñaar ñooñu su fekkente ne ak njibar la nu yor te njibar ga mu ngi ci yetwa wa bàyyi leen nelaw ndax kat jamono bi muy nelaw dootul mën te def ci njibar ga dara bu yeewoo rek la cay mën dara kon bayilen leen ba nelaw ngeen sàcc yetwa bu ngeen sàccee yetwa rek kon ak njibar la nu yore waaye su fekkente ne nag jéem ngeen a sàcc yet mënu leen yorul ak njibar ak nubu wala yor moom seen sëriñ bi leen jàngal jabar te tëdd ci biir bàmmeel bi génn àdduna ñoom ci seen njabar fexe neen ba wax ak moom mu tontu leen kàddu yi kon nga xam ne njabar lu foor la ñu daal di ñëw Égypte bi ñu ñëwee lañu njëkk tëral mooy nañu fexe ba bett Moussa ak Harouna ñuy nelaw pour ñu jéem a sàcc yet wi waaye ba ñu ñëwee fekk leen ñuy nelaw ñu jóg pour sàcc yet wi yet wi jóg nekk jëmmu nit juy xeex ak ñoom ñoom ñépp ci leen ñaaw njort ci ne kii ab yonent la waaye du jëbarkat moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu ñëw war a gisanteeg firawna firawna dafa wax yonent yàlla Muusa ne ko قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى مونيكو ne نغب ñëw نيو генي سي سونو سوف واي تيغلوكو فن لودو teguloo ko fenn lu dul rek ci bëgg ñoo jibar بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى bi nga xamante ni ñoom jëbarkat yi dellusi si nen te bis ba ñëw mbooloo mépp daje ñu war a jëf ci wàllu jibar googu bi nga xamante ni ñëw nañu muusa dafa ñëw rek attaqué leen fekk jibarkat yépp a ngi toog Moussa attaqué leen qaala lahum muusa waylakum laa taftaru ala allahi kadiban fa yusxitakum bi adaabin wa qad xaaba man iftara mu ne woonaa seen toskare yéen jibarkat yi woonaa seen toskare yàlla dana leen alak yéen ñëpp ëllëg ci mbugal leen te itam maa ngi leen di yëgal ne képp ku duural yàlla képp ku duural yàlla perte nga maa di yëgal nag ne ak njabar rek ngeen yor waaye mënalu leen ma dara mënul leen yàlla dara mënul leen a gàllankoor sama message lu ngeen mën nag ci njabar def leen ko fa tanaaza'u amrakum baynahum wa asarru najwa ñoom nag ñu daal di déyante ñoom jabarkat yi kenn ku ci nekk di déy sa moroom di wax waaye lan leen doon déyante ñu ngi naan ah, waa jii de ak melokaanam kanamam gu sell gii waa ji ak eh, kanamam gu am hayba bii kii de kanamam gii ku ko gis xam ne ki ndawal yàlla la ki xam ne du ab jibar de ñom loolu la ñu waxante ci seen biir waaye nag ñi ci ëpp xam-xam nekk sëriñu jibarkat yi ñoo doon déyante loolu ah xalu إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريق بطريقتكم المثلى ñu naa ñii de ay ñaari jibarkat leen rek yu fi ñëw yu def seeni pexe pour bëgg ñoo génnee dëkk bu nat bi te nëtax waaw su ko defee nag seen yoon wu baax wii te moo di gëm gi ngeen gëm na ànd ak moom gëm ne yàlla la yoon woowu moo leen naqari moo tax ñu bëgg ko fee dindi waaye nag dana xam ne tey ñoo ko dàq jibarte ñoo ko mën waaye mbokk yi yonent yàlla Muusa ak jibarkat yi combat nañu fii combat bu metti boo xamante ñu ne na dajale na lu tolloog juróom-ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nekk rek njuuma nga ci wàllu njabar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñoom ñëpp ñu daal ñëw ci bis boobu waaye ci yàlla Muusa alayhi salaam bi ñu ñëw bi mu ñëwee fekk mbooloo maa ngi fees dell firaaw na ñu ngi ko defaral benn tirbin bu rëy mu nekk ca kaw foo sànni mbàttu mu tag ndax nit ñu bari yàlla dogal yonent yàlla Moussa dugg si ak caractère ba ànd ak Haroun bi mu dugg see ba agsi ci jabarkat yi daf leen yuux leneen leen yàlla ngeen toskare yàlla ngeen toskare yéen jabarkat yi waaye na xam ne tey ku àndu ak yàlla danga nga perte noonu jibarkat yi daal di jóg daldi di songu na ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu alxaalibin ñu ne ko ndax dang ñu defal ndàmpaay lu rëy su fekkente ne gañe nanu Muusa firawna ne leen danaa leen boole ci samay ministre da ngeen bokk ci ñi may gën a jege su fekkente ne yéen yéen a gañe yontu yàlla Moussa danaa leen boole ci mbooloo mi may gën a jege ñoom ñëpp ñu daal di kontaan kenn ku ci nekk daal di xool sa morom ree kenn ku ci nekk yaa ngi yor buum nag yor yat comme ni yonent yàlla Moussa yore yat waaye foofu la nga fay gis moo di cëru yàlla léeg-léeg day xaw a niroog cëru seytaane ba boo xàmmeewul rek mën nga leen boole waaye su la yàlla dimbalee may la imaan may la itam ak ràññee da nga dem ba danga nga xàmmee ku ànd ak seytaane ak ku ànd ak yàlla Moussa yet la yor waaye ñoom itam yet la nu yor boole nañ ci sax buum bi nga xamante ni taxaw neen jàmmaarloo mbooloo mépp taxaw di seetaan Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa. Jibarka ne ko yow Musa. ndax yow yaay njëkk sanni wala ñun ñoy njëkk sanni. Qala bal alqu Musa ne len sanni len njëkk len a sànni ñoom jibarkat yi kenn ku ci nekk da di tee buum ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu nañ ci juroom ñaari junni jabarkat am na sax ñu ne ëpp nañu ko kenn ku ci nekk wax ne bi izzati firawn inna la nahnu alxaalibin nee na ñu ngi sukkandiku ci doole firawn ak kattanam ak darajaam ñu ngi sukkandiku ci doole ju màgg jooju pour fas yéene gañe tey yonent yàlla Moussa kenn ku ci nekk daal di sànni yet wa nga yoroon ak buum nga nga yoroon ñu nekk ay jaan yu rëy bari lool di yéegante di wàccante nit ñépp at ndax jaan yu bari dañ ci gis sax jaan ju mel ni ceeb bi léeg nga gis bu naaw dali fële ba loola defoon na ak tiit ci yonent yàlla Muusa ndax yàlla wax na ni fa ida xibaaluhum wa isiyuhum yuxayalu ilayhi min sixrihim annaha tasaa yàlla nee na seen buum ya ak seen yet ya nee na ci bëtu yonent yàlla Moussa dafa mel ni ay jaan yuy dox waaye man yàlla xam naa ne ay yeti kesel dañuy dañu bëtu nit ñi rek ba nit ñi di ko gisee jaan waaye ay yeti kesel la ak i buum yàlla nee na yëg naa ci xolu yonent yàlla Moussa ni tiit na fa aw jasa fi nafsihi xiifatam Moussa waaye yàlla ne qul naa laa taxaf innaka anta al aala yàlla déy yonent yàlla Moussa ne ko bu ragal yi ay yet la rek ak i buum sa bët yi rek la ñu jibar nga koy gise jaan waaye ay yet la de ak i buum kon bu ragal te itam yow yaa leen di gañe buñ doon ay jaan dëgg sax yaa leen di gañe rawatina ñu nekk ay buum ak i yet yàlla ne ko wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau innama sanau kaydu saaxirin wala yuflixu saaxiru xaytu ata sànnil lox euh, yet wi nekk ci sa loxo ndeyjoor kon nga dégg ci ne yonent yàlla Moussa yet wa ci loxo ndeyjooram la ko daan téye yet wu laab la yet wu sell la mu ne ko boo ko sànnee dana wan lépp loo xamante ni defoon nañ ko ci ak njabar moo xam buum la gu ñu sànni wala yet jaan yi nga fi gis yëpp dana leen wan nee na te lii ñu def nekk lu dul pexem jabar rek du dara néegu jargoñ la rek ci biir néeg boo ciy lonk sa baaraam mu lay topp waaw ak njibar la te njibar moom tegewul fenn te maa ngi lay yëgal ne ab jibarkat du dugg àjjana mukk du texe mukk kon jibarkat yi nanu bàyyi seen bopp xel képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo ak njibar yàlla nee na doo texe laa yuflixu saaxiru xaytu ata ah yonent yàlla Muusa daal di sànni yatam wa waaye ba mu ko sànnee rëy na rëyaay bu ëpp sax ba mu rëyee woon ca pale firaaw na daldi ubbi gémmiñ gi bi mu ko ubbee gémmiñ gi dafa mel ni acier fu jaanu jibar nekkoon rekk gémmiñ làmmiñ wa xëcc na ko jaan yi di dugg di dugg di dugg benn par benn ba jaan yépp jeex nit ñaa ngay daw di buuxante di raj rajloo di mbëkkante ba wax ne ne sax am nañu ca faatu ndax ba melokaanu jaan bi yonent yàlla Moussa sànni melokaan wa moo moo moo jéggi dayu mu lekk la fa nekkoon ci jaan yëpp ba dara destul a ah, jibarkat yëpp daal di jaaxle xool ba ñu dalee def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéemaan yëpp gis nañ tey koo xamante ni yéem na leen ci wàllu njibar ba pare gën leen a féete ndaw ah ñoom nag ñu daal di jaaxle ba ñu jaaxlee nag dañu daal di delluwaat rek ci seen borom xam ne am na ku leen mën tey te itam lii nga xamante ni moo ànd ak yonent yàlla Moussa du ak njibar ñoom ñu ne ah lii de bu doon ak njibar la kon du lekk suñu jaan yi kon day nekk jaan rekk ni ñoom di buuxante ci ñoom ci seen biir waaye ñun gisatuñu fi yet gisatuñu fi buum lañu sànniwoon woon yépp lekk na ko kii daal du ab jibarkat kii ku yàlla yónni la moo tax alquran wax ni fa ulqiya saxaratu sujjadan qaalu amanna bi rabbi haaruna wa muusa nee jibarkat yépp daal ni groupe ci suuf daal di jébbalu ci yonentu yàlla muusa ni gëm nanu tey gëm gu wér gu amul benn naafeq gëm nanu ne yàlla ji yónni yonent yàlla Muusa yónni yonent yàlla Haarun benn yàlla rek la te amul benn yàlla bu mel ni moom ah loolu nag daal def kersa ci Firawun def itam ak mer ak ak rëy ci Firawun Firawun daal di jóg buur wut leen ñëw ba tiim jabarkat yi ne leen آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن leen دي جم di gëm موسى yàlla مالين te joxuma leen ci ndigal man ku ngeen di yëg naa ne mooy seen sëriñ bi leen jàngal ak njibar moo leen jàngal njabar ba pare ngeen kompaloo ñëw fii pour daaneel sama nguur waaye tey nag danaa leen mbugal mbugal moo xamante ni kenn mësu koo mbugal nit ci ko suuf mu ne danaa dagg seen tànk yi dagg seen loxo yi te bu ma koy def dama koy jaabatle su ma daggee loxo ndeyjoor dagg tànku càmmoñ su ma daggee tànku càmmoñ dagg loxo ndeyjoor mbugal leen mbugal moo xamante ni jéggi na doyo xam nga alquran dafa wax ne wala usallibannakum fi juzuci naxli dañ ne fii boobu bi maanaa alaa la waaw bi maanaa alaa la maanaam danaa leen pendre ala juzuci naxli mais li tax alquran utilisé fii fii fii juzuci naxli pour wane yéene bu bon rayba ak mbugal mu metti mi leen firawna yene motax mu mu fi harafu fi mu teelen pour jëm leen mbugal mbugal mu metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من, من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى jibarkat yi ne firawun ñun du ñu jënde yàlla mukk leneen te lay yu leer yii nga xamante ni yonent yàlla Muusa indi na ko muy ay la ay lay leer nañ ci luy wane na yàlla rekk a yàlla nee na loolu mbugal mu metti du tax ñu saalit ba bakku jox ñu itam ci àdduna lu ne du tax itam ñu saalit ba bakku ñun dal gëm nañu yàlla te dootuñu deltu ginnaaw ñu ni ko nag gannaaw a ngi nii jëlal yàlla jox la lu la neex defal ndax àdduna bii dafay jeex rek du mujj fenn suñu deewul fii rek deewaat feneen kon daal gëm nañu yàlla te fas yéene wu ñoo deltu gannaaw loo xam nag defal ñun gëm nañu suñu boroom pour mu jéggal ñu suñu njuumte yu njëkk yi ak njibar gi nga xam ne yaa ñu ci forcé ba ñu jàmmaarloog nitu yàlla di jonganteek moom ci wàllu njibar te xamuñu dara mënuñu dara lu dul ak caay-caay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waaye nag maa ngi lay yëgal ne yàlla moo gën te mooy des ëllëg boo ñu reyee itam danga ñu fekki te maa ngi lay yëgal yow Firawna ñu ngi lay yëgal ne képp koo xamante ni wuy ji nga sa boroom te jamono bi nga koy wuy ji fekkoon la nga doon def lu bon gëmuloo ko nee na boo demee itam dana la dëkkal safaraw jahannama nee na te boo fa dëkkee itam doo do doo dee waaw dangay dund ba faw dëkk ci safaraw jahannama nag nekk faak sa ruux kooku mbugal mu metti la mu ne nag képp koo xamante ni wuy ji nga sa boroom te ba nga koy wuy ji booba yaa ngi ànd xol bu sell bu laab te ànd ak ngëm te fekkoon la ngay jëf lu baax nee na ñooñu ëllëg ñooy dugg àjjana te ñoo fay am daraja yu kawe nee na àjjana yu neex yoo xamante ni dex yaa ngay daw ca suufu étage ya nee na te fa la ñuy dëkk sax fa ba faw nee na àjjana jooju nag mooy payu képp koo xamante ni sellal nga jëm ci sa borom firaaw ne na waaw bu yeboo waaye daal danaa leen rey yéen ñépp ci la jëlee nag jibarkat yi kenn ku ci nekk mu dagg sa loxo dagg sa tànk duma la duma yu metti ba yàlla jël sa bakkan waaye bi nga xamante ni nekk nañ ci mbugal mu metti mi di ko def nit ñi am na benn waay bu ñëw xasqil xasqil yéen ñëpp xam ngeen ko moo doon ki nga xamante ni moo defaroon kees ga ñu dugaloon yonent yàlla Moussa ba muy nekk liir te ba yonent yàlla Moussa reyee liir ba reyee waaja moom moo ko digal ne ko dawal ndax nit ñaa ngi lay seet buñ la jàppee daneen la rey te waxoon ne ni moom mësta gëm firawna ndax moom yonent yàlla ibrahima la gëmoon ak diineem ca la jàppoon dafa àndoon ak firawna rek nëbb ngëmam moom la yàlla di siñaale fii ne am na benn waay ju baax joo xamante ni mu nga bokkoon ca waa kër firawna ya doon liggéey ca pale ba moom di lii la wax wa qaala rajulun muminun min ali firawn يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض, بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب من ne نخ ndax دراي ngeen di rey nit boo xamante ni dafa reconnaître ne yàlla moo bind moo ko ndax loolu danañ cere rey nit te itam ki ko wax indil leen ay lay yu yu leer nañ jële ko ci boroomam fentu ko lu dul borooma ko boroomam moo ko yónni mu ñëw wax ko te itam bu dee ay fen nee na mu dem ak ay fenam su dee dëgg la itam e li mu leen dig yépp ci biir dëgg gi da ko am te moo di teraanga yi nga xamante ni yàlla dana ko xarool ñi nga xamante ni gëm neen ko ëllëg te maa leen di yëgal ne yàlla du ànd ak mukk képp koo xamante ni yàqkat nga ba pare nekk fenkat te kat kii ma gis nitu yàlla la ku baax la man di gëm naa ko ànd ak moom kooku la ñuy wax xaasiqiin waaye kooku soxnaam sa moom itam moo daan lët doomi firawna yi ñu ko daan tuddee machitatu banaati firawn walla ñu tuddee ko machitatu ali firawn moo leen daan peñe di leen lët موم سخني xadqib قدمي ñu كانت مؤمنة من إماء الله الصالحات إلا أنها كانت مع بنات فرعون تخدمهن وكان من قصتها ما أخبرنا به الأساتيز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة fa qaal raihatu machitati ali firawn wa awlaadiha ñu ne jële neen ci boroom xam-xam yi ñu jële ci saïd ibnu jubayr saïd ibnu jubayr jële ci abdullah ibnu abbas ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko yàlla woowee ngan ci kaw nee na ba mu demee ba ci kaw asamaan si nee na romb na ci benn place nee na parfum ba fay xeeñ neex na neexaay gu ëpp ba yonent bi ne ah parfum bi xeeñ fii de neex na mu daal di gestu laaj Jibril ne ko waaw parfum bi may xeeñ fii lan la Jibril ne ko e, moo di jigéen ja doon létt waa kër na ñu ko doon tuddee machitatu ali na ak ay doomam ñu dëkke fii ñoom la yàlla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan moo doon seen histoire mu ne ko machita bis daf doon lit doomu firawna ju jigéen bi mu koy lit nag peñe bi daldi di wadd bi mu waddee nag bi mu koy for mu daldi wax bismillah maanaam maa ngi for peñe bi ci turu yàlla doomu firawna ji ne sama bàyyi nga ci jublu wala mu ne ko déedéet maa ngi ci jublu sama boroom ak sa borom bi nga xam ak sa maa ngi ci jublu sama borom bi nga xamante ni moom moom moom sa bàyyi xale bi daal di mer ñëw ci firaaw na ne ko manchita kat léegi gëm na yonent yàlla Muusa gëm na ko itam te ànd na ak moom mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko baax na daal wax ne neen ko taalal puur bi ba safara si yànj bi ñu ko taalee puur bi ba safara si yànj mu jël manchita dugal ko ci puur ba jël lépp lu mu amoon ci ay doom dugal ci foofu la ñu lakk ca puur ba ba jeex waaw ci benn tannuur min nuxaas ci la ko dugal ah waaye bi ñuy rey ndaw soosu di machita ali firawn bi ñu koy rey fekkoon na boobu asiya bi nga xamante ni moom moo doon soxna ci firawn mu ngi sëpp ci balcon bi bi mu sëppoo ci balkon bi gis na ni ñuy jëlee machita di ko dugal ci biir fuur bi ni ñu jëlee itam doomam yi kenn par kenn te itam na dafa xam mbugal dafa xam mbugal mu mettite te soxor dafay jël doom yi njëkk leen a dugal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lakk sa doom ngay gis bi doom yépp jeexee ñu jël ko moom dugal ko ci biir fuur bi waaye Asiya li ko jaaxal bi mu taxawee ci balcon bi sëpp gis ni Firawna di mbugalee eh, jullit ñi nee gis na ay malaaka yu jóge ci ko asamaan moom Asiya ñëw bi ruuxu Maashuta di génn ci fuur bi nga xamante ni bi muy dee ba ruux gi di naaw nee na malaaka yi ñoo ko jël taawu ko def ko ci ay ndabi jamaan yu rafet naaw ak moom jëm ko asamaan keroog Asiya nee na mësuta gis mbooloo mu yéeme noonu Firawna bi mu leen reye ba noppi yéeg nag ci kaw étage bi ñëw fekk Eh, Asiya mu ngi sëpp ci balkon bi muy wax ak moom nag ni ko nag ah sama gaay yi de rey naa leen rey bu metti waaye ku yëngu rek nii man de ku yëngu rek ma rey bi mu koy wax ndeke Asiya moom xol bi fees na dell ak ngëm Asiya turne rek ne ko alwaylu laka yaa firawn ma ajraka ala allahi taala mu ne ko firawn yàlla nga toskare yaa ñeme sa borom bakkan yi nga jër tëral leen fii di leen rey yaa bon firawna yaa toskare firawna ne ko laallaki qad ictaraaki aljunuunu alladi ictara saaxibatik فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين آسيا نكو فرعون نكو آسيا دما يكا نندفت جد دالسا àndandoo bi di Machita dama yaakaar ne ndox te gi ko dal dal jëbarkat yi moo la dal asiye ne ko wallaay dofuma man kay maa ngi lay yëgal ne gëm naa yàlla mi nga xamante ni moom moom te moom la te moom lépp lay bindee borom boobu gëm naa ko te dootuma ci deltu gannaaw ah Firawna daal di gën a jaaxle ndax xamatul nu muy def mu daal dem ndax bëgg na Asiya bëgg ko rey mu daal di dem ca goro ba woo ko te mooy yaay Asiya mu woo ko ba mu ñëw mu ne ko sa doom ji nag man moom rek laa bëgg waaye mu ngi may bëgg a jaaxal léegi daal wet dina ma te gëm na itam yonent yàlla Muusa léegi nag li ma bëgg mooy nga wax ak moom su dëgëree bopp nag danaa ko rey yaay ji daal di ñëw lu ne mu wax ko Asiya kii ngay topp nangam ak nangam te nga toog ci sa jëkkër ji yow yàlla jox na la àdduna jox na la nguur jox na la nga bëgg a bàyyi gannaawal yooyu yëpp topp koo xamante ni mënul la dara yorul dërëm mënulaa jariñ ci dara Asiya ne ko man daal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wecceeg dara man gëmu gëmuma kenn ngir intérêt dama réeroon rek waaye dem naa ba ginneeku li ma gis daal gis naa ko te gëm naa ko te dootuma deltu gannaaw a ah, mu wax ko Firawna Firawna daal di mer jàpp Asiya rey ko na mu reye woon jibarkat yi def ko def ko mbugal mu metti moo xamante ni mbugal mu jéggi dayoo la wax nañ ne bi mu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yàlla Moussa yëg ko dafa ñaan boromam ni ko yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga woyefal mbugal mi ne di mbugal Asiya yàlla nga ko woyefal ci moom foofu nag la ay malaaka ñëw tiim Asiya ne ko irfa'i ra'saki ne ko yëkkatil sa bopp boobu ñu ngi ko tëral di ko dóor di daggate yaram wi Asiya daal di boppam bi mu yëkkatee boppam am na baat yu mu ñaan loolu alquran nettali na ko ndax alquran joxe na exemple ci ñaari jigéen joxe na exemple ci Asiya joxe na exemple itam ci Mariam Mariam mi nga xamante ni moo jur Jésus di yonent yaayu yonent yàlla Isa mu wax moom alquran ne wa daraba allahu mathalan wa daraba allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bi mu yëkkatee boppam moom asiya lii la wax daf ne yow sama borom maa ngi lay ñaan yàlla nga ma tabaxal kër ci àjjana te nga musal ma ci firaw ak jëfam yu ñaaw yi te nga musal ma itam ci nit ñu kàccoon ñi nga xamante ni maa ngi dëkk ak ñoom di ànd ak ñoom bis bu nekk yàlla ne ko malaaka yi ne ko yëkkatil sa bopp du mu yëkkatee boppam nag ñu wan ko château ya mu am ci àjjana mu daal di ree bi mu reetaanee nag Firawna daal di gis Asiya di ree ak mbugal mu metti mi ñu teg ci kawam pour rek bëgg mu dellu siwaat Asiya continuer di ree Firawna ne voilà xool ko kii de ndofte gi dal nag waa kër Moussa yi dal na ko dëgg xoolal mbugal mi ni mu méttee waaye moom mu continuer rek di ree loolu day wane ne am na loo xam ne soo ko xasee ñam dara dootu la saf lu mbugal metti métti du la saf ndax yàlla ji nga xamante ni moo boof ci sa xol loolu daloon nag ku ñuy wax Xubayb moo taxoon mu waxoon boromam ne ko walaytaka taxlu wal xayaatu marira walaytaka tarda wal anaamu xidaabu walayta alladi bayni wa baynaka caamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu safa minka alwuddu falkullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu waaye jigéen jooju di Asiya ak ka daan létt te mu di maachitatu ali firawn ñoom di ay jigéen lañu waaye gëm nañu seen boroom bay nañu itam seen waar ci lislaam ba des ci ak seen bakkan waaye yàlla xarool na leen taranga yu jéggi dayu kii tabaxal na ko ay château yu rëy ci àjjana ba pare yàlla def na ko nettali ko bi yonent bi ñëwee wane ne jigéen la joo xam ne gërëm na ko ba tabaxal na ko foofu ay château kële itam dimanche yonent bi nee na ba mu demee ca tukkem ba romb na barab bu sell boo xamante ni parfum bu neex nga fay xeeñ jibril ne ko fii Mansuuta moo fi dëkk ak njabootam kooku kooku itam day wane e ne itam jigéen ñi ak góor ñi ñoo yem ci lislaam bi ku liggéey rek jël sa cër moo tax moom Asiya mbugal mu metti bi nga xamante ni yàlla teg na ko ko mu nangu ko natt boobu tax na yàlla jël ci moom exemple jëloon na itam ci exemple ci سيدتنا مريم نح ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نمو جلي إتم إكزامبل تي جيجين نيو باخ نيو نون لجلي إكزامبل تي جيجين نيو بون ون إتم جيجين دنا بون دنا نكا كو باخ بباريتون بون وضرب الله مثلا للذين كفروا imraata nuuxin wa imraata luutin kaanataa taxta abdayni min cibaadina saalixayn fa xaanataahuma fa lam yugniyaa anhuma min allahi shay'an wa qiila duxula annaara maa addaaxilin yàlla joxe na exemple ci ñaari jigéen ñoo xamante ni dañu àndoon ak ay yonent yu baax kenn ki di jigéen ja àndoon ak yonent yàlla noox ka ca des di jigéen ja àndoon ak yonent yàlla lóot nee na ñaari jigéen ñooñu ñaari jigéen ñu bon leen ndax yàlla nee na dañu nekkoon doon ànd ak sama ñaari jaam yu yiw nee na waaye dañ leen a wor trahir leen nee na itam yàlla nee na ñu ëllëg yowmal xiyaam danaa leen dugal safara boole leen nag ñu mel ni firaaw na ñu ànd dugg safara ma toroxal leen mbugal leen ñu ne waaw lu tax ñaari jigéen ñi nekk jigéen ñu bon gis nga jigéen ji àndoon nag yonent yàlla noox xam nga yonent yàlla noox ku yàgg ci ay nitam la di leen woo wax ne ne dund na ak ñoom junni at ba ñu demee ba amuñ ci moom benn pexe dañ ne nañ ko may jabar pour gën ko mën jekku nanu ko may jabar pour gën ko mën jekku jabar jooju ñu ko may nag xeetu caay-caay gun nekk jëflante na ko yonent yàlla noox pour ay noonam mën a jot ci moom far yàlla musal ko ñoom nag amoon nañu doom bu ñuy wax kanaan moo tax bi nga xamante ni yonent yàlla noox alayhi salaam woote na ba tàyyi ci wooteem te yàlla ne ko defaral gaal mu defar gaal war jël ñi ko gëm ànd ak moom ànd ak ñoom dugg ci gaal gi ña ko gëmul ma bàyyi leen ndax ñooñu yàlla daf leen di alak ndax sobe leen te yàlla dafa bëgg raxasaat àdduna bi addunaam bi keroog ba yonent yàlla noox di dugg ca gaal ga woo na doomam jooju nga xamante ni soxnaam soosu ñuy wax alquran di wax ne nekkuloon ku baax jur ko ba ko yonent yàlla noox wooye dafa bañ yonent yàlla noox ne ko yow sama doom kaay nga ànd ak man mu ne ko déedéet mu ne ko soo ñëwul danga nga ci ndox mi de mu ne ko bu yeboo te itam duma lab ndax montagne bu gudd bële mën naa faa dem toog fa ndox ma du fa agsi fekk ndox ma dana ko dépassé ba dépassé ko lu tollook moom wala lu ko ëpp keroog yonent yàlla nuux jaaxle na jaaxle goo xamante ni ñaan na boroomam wa naada nuuxun rabbahu wa qaala rabbi inna bni min ahli wa inna waadaka alxaq wa anta axkamu alxaakimin yàlla nee na yonent yàlla noox woo na ma keroog daal di may wax ne ma yow sama boroom sama doom bii de ci samay ñoñ la bokk ci sama waa kër la bokk te itam xam naa ne sa rendez bi du tàrde taw bi fokk mu ñëw ñi la gëmul fokk nga mbugal leen fokk ñu dee ci taw bi te itam xam naa ne yaa gën a mën a àtte ñépp te yaa gën a maanu ñépp ma bëgg sama doom ji sopp naa ko cofeel goo xamante ni bëgg naa mu ànd ak man ci gaal gi yàlla dafa wax ak ci yàlla nuux qaala yaa nuuxu innahu laysa min ahlik innahu amalun gayru saalix takuna min aljaahilin mu ne ko yow nuux kii bokkul ci sa njaboot ndax liggéey la boo xamante du liggéey bu yiw te maa ngi lay yëgal ne xanaa xamuloo ne yaayam bañ la koy may intention ba nekkuloon intention bu sérieuse dañ la bëggoon a jekku looloo tax ñu may la ko yéene boobu nag moo tax loo juróon nag moom rek day bon moo tax innamal amalu binniyaat kon képp koo xamante ni yàlla dogal na yaa ngi jëflanteeg nit nang ca lal yéene bu sel soo ca lalul yéene bu sell itam lu bon rek a ca yam ndax sëy su fekkente ni yéene bu sell lalu ko lu dul intérêt rek moo ko lal wala leneen lal ko fokk nga gis natiija ba fokk résultat bi génn moo tax mu ne ko yàlla ne ko indi na innahu amalun gayru saalih waaw yéene biñ la ko maye woon moo yiwul loola tax sa doom ji du mën a nekk jullit yéefeer rek lay nekk loo ko bëgg-bëgg itam wan ko gannaaw bokkul ci sa ñoñ mu mel ni kon jigéen ñi am na ci ñu baax wante itam am na ci ñu bon waaye ñun ñi ñu yitteel mooy ñu baax ñii pour soxna yi mën leen roy ku mel ni saydatuna asiya saydatuna asiya rey nanu ko waaye yàlla teeroo na ko ay chato yu am valeur ci àjjana waaye bi nga xamante ni yontu yàlla Muusa alayhi rey na asiya rey jibarkat ya rey léttkat ba doon létt ay doomam te la tax ñu rey leen du dara lu dul rek gëm gu ñu gëm yàlla yàlla nee na nag jël naa nag samay aaya samay aaya ñu nekk juróom-ñeenti aaya yoo xamante ni dama ko tegale waaw indi benn miracle ñu ñaan ma teggi indiwaat beneen miracle fa tataabaa allahu fa taabaa allahu alayhim al ayaati almufassalaat baadaha fi ithri baadin te aaya aaya yooyu nga xamante ni yàlla moom la indi woon juróom-ñeenti aaya la ba ci njëkk moo di yat wa yat wi miracle la loxo bu weex ba itam bi nga xamante ni yàlla dafa waxoon yonent yàlla Muusa ne ko dugalal sa loxo ci sa biir poche soo ko génnee dana weex dana am leer lumière bu fés bu ciy génnee boo xamante ni dana jaaxal képp koo xamante ni jàkkaarloo nag yow alquran wax ne wa nazaa yadahu fa ida hiya baydaun linnaadirin kooku itam ci miracle yi la bokkoon ak ba mu di tuufaan ak njéeréer yi nga xamante ni yebaloon na ko ak teeñ yi nga xamante ni itam yebaloon na ko ak mbott ya ak deret jaak tams ba ba mu leen masxoo ak eh, xar gi mu xar géej gi yi mooy juróom-ñeenti ayat yi nga xamante ni tudd na ko ne ay miracle la yoo xamante ni Moussa jëfandikoo na ko pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour dugal leen ci lislaam waaye nanguwuñu am na sax ñu ne Moussa nit ku ñuul la woon ñu ne li tax mu nekk nit ku ñuul moo di li ko yàlla wax ne ku dugalal sa loxo ci sa biir poche soo ko génnee dana leer dana weex tàll weexaay boobu dana jaaxal képp koo xamante ni rek taxaw na jàkkaarlook yor yow yor ñaari bët loola tax ñu bari ne yonent yàlla Muusa nit ku ñuul la woon ñu bari ne neen yonent bu ñuul amul waaye nag yonent yàlla Muusa moom ñu bari ci boromi xam-xam yi wax ne ne nit ku ñuul la woon te itam boo xoolee Égypte ay copte yi fa dëkk ñu ñuul lañu ndax am na benn dëkk bu ñuy wax naw ba mu ngi frontière ak Soudan et soo demee am na fa lu tollook vingt millions ci ay ay égyptiens yoo xamante ni ay nit ñu ñuul leen naw ba nag tubaab yi moom la ñuy wax nii bi et kon loolu day wane rek ne lu mën a nekk la yonent yàlla Moussa nekk nit ku ñuul ku mel ni Cheikh Anta moom wax na loolu te égyptologue la nee na yonent yàlla Moussa ku ñuul la woon ci bi mu defee ay mbiram gis na ne daal yonent yàlla Moussa nit ku ñuul la woon ala kulli xaal taarix moom taarix la rek waaye ku mel ni imam Sha'rawi moom dafa contre lii waaye tegu ko lu dul rek ci racisme ndax moom daf ne daal Moussa nekkuloon nit ku ñuul parce que imam Sha'rawi borom xam-xam la ci Égypte ñëpp di ko coow mais moom daf ne woon daal yonent yàlla mu dafa weddi wax bi moom nee na yonent yàlla Moussa du nit ku ñuul waaw nee na ndax ñuul naqs la ak wàññeent la te ab yonent warta wàññeeku xam nga boroom xam-xam bu toll nii wax-wax bi day nekk jam-jam bu rëy loolu tax toujours mag ñi di bëgg nit ñu ñuul ñi xam ne lislaam bi kenn moomu ko lislaam bi kenn moomu ko alquran dafa wax ne maa leen bind yàlla dafa wax ne maa leen bind wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu waaye inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a ragal yàlla ci yéen mooy ki gën a ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla maa leen bind nag def leen ay giir def leen ay peuple pour ngeen mën a xamante ci sama tur man yàlla waaye nag ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen kon bu waxee ne der bu ñuul wàññent la daf ko wax rek teg ko ci bakkanam waaye tegu ko ci xam-xam parce que e, yonent bi ci boppam wax na ni ku weex gënul ku ñuul ku ñuul gënul ko weex ku weex gënul ko xonq ku xonq gënul ku weex gënante bi daal mu ngi amee rek ci ragal yàlla kon inna akramakum inda allahi atqaakum waaye daal al muhim huna li ñu yitteel fii du Moussa ku ñuul la woon wala ku weex la lañu ñu soxla rek mooy jikko ji waaye yàlla moom moo bind ku mu bonal nga bon ku mu baaxal nga baax waaye daal ñu bari jiñ leen na yonent yàlla Muusa nit ku ñuul la woon mu mel ni bi nga xamante ni yonent yàlla Muusa jëflante na ak Firawna te na wane ak soxor ci ña ànd ak moom yàlla jox na ko itam ay tegtali doole te mooy ay miracle bu ci njëkk moo di fexe na ba am taw bu metti boo xamante ni taw na ko ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara a nit ñi loolu defoon tiitaange bu rëy ci waa Égypte ñu daal di ñëw daw si ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko li ñu bëgg mooy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp daneen dee yonent yàlla Moussa daal di ñaan taw ba teggee ko ah mu yakane gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu indil waye nak ñu ngi lay yëgal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufan wal wal wad altufaana waljarada walqummala والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين بيغا خامتيني ولما waqa alayhim ar-rijz qalu ya musa du'lana rabbak bima ahida 'indak لكن لئن كشفت عنا عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون سني ولرنتك يونت يالا موسى بمو نيان يالا با يالا تيغي مبوغل ما رك ني ديلو وات تي ميلوكان ونيو نيكون ملني واخو ني وون اك موم واي يالا كونتينيوات تي غيناو طوفان بي اندي اي نجيرير njéeréer yi dugg ci dëkk bi lu ñu bayoon njéeréer yi lekk nañ ko ñu dem ba mënatuñoo am dara ay njéeréer yoo xamante ni dafa mel ni rek e soldaar yu yàlla yebal ndax seytaane waxoon na yàlla ne ko eh, man am naa soldaar yàlla ne ko kan ñan ñooy sa soldaar mu ne jigéen ñi yàlla ne ko man njéeréer yi ñooy samay soldaar waaw xeet wu ma dem ba jéppi leen rek danaa yebal ci ñoom ay njéeréer waaw njéeréer yooyu nag ñoo ñëw sonal leen ñu mujjaat ñëwaat ci yonent yàlla Moussa ñaan lu nekk ñu jabatu ko wax ba yonent yàlla Moussa ñaan boroomam yàlla teggi mbugal ma ba mu ko teggee itam ñu delluwaat rek daldi e fecciwaat wëllëre ba mu yebalaat ci ñoom itam e ay teeñ ñi ne ay matt la wax yi bari na ci waaye daal yebal na ci ñoom daal lu mel ni ay teeñ yu leen di matt seen lal yéeg foo dem seen yaram yi seen bopp yi yépp ay teeñ lañ nekk képp koo xamante ni rek weddi nga yonent yàlla Moussa àndul ak moom e, ci say yaram ak sëy say yëreeg sa néeg ak fu ne miir yeeg yépp ay teeñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yàlla Moussa itam daal di ñaan yàlla teggi mbugal ma teewul tam ñoom ñu continuer waat rek fecci waat wëllëre ba mel ni du ñoom ñoo demoon ci ci yàlla Muusa doon ko ñaan pour mu teggil leen bugal mi ñu mel ni daal ku koy fooye ah ñu teg ci diir ci yàlla Muusa la ñu chartonté woon ak moom defuñu ko yàlla wàcceewaat ay mbott dëkk bi daal foo dem mbott a nga fa tali yi da ngay dox di jogaate mbott yi dafa mujj dëkk bi di xeeñ ndax mbott yi dee ci mbedd mi ci kaw lal yi ci ndaa yi fu ne sa poche yi sax da ngay dugal di génne dara fekk ci ay mbott nga génne di sànni ndax mbott yu bari fu ne mbott yaa nga fa ah da teg sax sa boolu añ di añ nga gis mbott yi tëb di dugg ngay seppi di sànni ndax mbott yu bari yàlla nattoo leen loolu taxul ñoom itam e ñu daldi génn ca nattu ba ah, maanaam génn ca lañu nekkoon lu dul dañu lalaat ay pexe ñëwaat gis yonent yàlla Muusaa ne ko ñu daal li ñu bëgg moo di nga ñaanal ñu sa borom bi xam naa yonent yàlla Moussa kenn ëpp ko natt ndax giir gi gën a dëgër bopp ci giir gi giir yi leen ko booleel muy juif yi e ñu ne ko li ñu bëgg daal mooy nga ñaan yàlla teggil ñu natt bi ndax mbott yi daal sonal nen mu ñaan mbott yépp yàlla mel ni daf ko raxas ci dëkk bi gisatoo fenn mbott am na ñooy sax mbott yi ñu ngi génnee ci niil bi waaw ci niil bi la ñu génnee rek songu dëkk bi am na ñu ne nag dañuy yeewu rek fu ne nga gis fa mbott waaw et bi ko juróom-ñaareel ci nattu yi ginnaaw bi ñu teggee nattu mbott yi yonent yàlla Moussa yaakaar ni dañuy gëm ñu lànkaat delluwaat ca yéeféer ga ñu nekkoon yàlla jékki-jékki rek wàccee deret ñu ne daal seen ndox ya ndox mi daal bu dee teen la wala robine wala ndox moo teg rek booy ñëwee boo tànqee bay naan rek mu nekk deret waaw soo duggee di sangu itam mu nekk deret moom daal ndox ma xonq cur la am nañu ne itam dañ caa boole di bori waaw seen bakkan yi di sotteeku deret rek dëkk bi daal fees dell ak deret waaye ñi gëmul nag yonent yàlla Muusa ñoom la yàlla teg nattu boobu wax nañ ne sax soo bu fekkee ku weddi yonent yàlla Muusa moo ànd ak ku gëm yonent yàlla Moussa di root ci teen bu kii bu kii rootee ndox mu sell lay yóbbu bu këlee rootee moom kii weddi yonent yàlla Moussa moom ndox mu am deret lay yóbbu loolu lépp yàlla nattoo leen ko waaye taxul itam e ñu jàjj lu dul dañu lalaat ay pexe ñëwaat ci yonent yàlla Moussa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mii nga xamante ni yàlla teg nañu ko ñu ngi lay ñaan nga giseeg sa borom bi mu teggil ñu ko ndax ñu ne kat sonn nanu sonn nanu te itam soo ñu dimbaliwul du baax yonent yàlla Muusaa moom itam ca mbaax nga ak itam yéene bu mu am ci xeetam ndax bëgguñu bëggul mukk aw xeetam daldi texe di lu dul dafa namm ci ñoom ak texe mu daldi delluwaat tàllal loxo boromam daldi ñaan yàlla ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mbugal mi nga teg sama xeet ka teggi ko yàlla dellawaat ndox yi ndox yi nekk ndox yu sel yoo xamante ni e, mën nañ koo jëfandikoo waaye taxul itam ñu jàjju a ah, lu dul ne ba ñu d'accord rek yonent yàlla Muusaa ci charte boobu a ah, dañu mujj nag daldi delluwaat ca kéeféer ga ñu nekkoon yàlla nag daldi xam ne ñii ay baadoola lan mu fas yéene leen nag raxas ci kaw suuf ba ñu set wicc mu daldi wax ci yàlla Muusaa ne ko léegi nag li mu bëgg moo di nga génn dëkk bi génnal dëkk bi yàgg gëm ndax dafa am lu mu bëgg li ma bëgg daal moo di suuf si dama bëgg ñi ma gëm donn ko الكفار وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون لكن نيو أورغانيزي organiser أي أي ay ay واكر موسى waa kër Moussa ñu ne daal comme ñoom ñoo nekkoon mbindaan yi waaw comme ñoo nekkoon mbindaan yi ndax ñoo nekkoon e xeet wi gëna a suufee ndax firaaw na moom ba mu yéegee rek daf leen suufeel te ñu nekkoon itam ay nit ñu baax nekkoon sët ci yonent yàlla ibrahim ak yonent yàlla ishaq ak yonent yàlla yaqub ak yonent yàlla yuusuf te yuusuf indi leen foofu ci misra ci égypte firaaw na jàpp leen doyedal leen ba ñoo nekkoon mbindaan ya daan liggéey ci kër yi di baleeg di fóot ak di tuuri mbalit yi ñu ne leen nag li ñu bëgg daal moo di comme e, dañu am benn feet bu ñu bëgg a organiser feet gii nag dañ ci bëgg nag ngeen abal ñu seeni takkaay su ko defee nag léegi e, kenn ku ci nekk ci waa kër Moussa yi bu patron ne ko daal dama bëgg nga abal ma ay takkaay ñoom nag ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujj na moom Firawna ñemeetul waa kër Moussa yi ndax e, miracle yi nga xamante ni yonent yàlla Moussa jëfandikoo na ko ci yet ak loxo ba ak taw ba ak njéeréer ya ak teeñ ya ak mbott ya ak deret ja eh, ñemeetul nag léegi moom yonent yàlla Moussa moom yonent eh, moom Firaw ne ñemeetul yonent yàlla Moussa foofu nag ci la digal moom Firaw na eh, soxnaam yi ne leen daal li ma bëgg moo di ngeen jël seen takkaay yi ngeen abal ko e, e banu Israil comme ñoom seen feet gi jublu si na bu ko defee nag ñoom ñu solu ci ñu jël nag seen takkaay ya seen or ya seen valeur yépp jox ko e, waa kër Moussa yi ndeke ñoom e, lanu bëggoon moo di bu ñu leen joxee or yi ñoom am na nu ñu organiser woon pour ànd ak yonent yàlla Moussa ndax yonent yàlla Moussa war naa ànd ak ñoom pour génn dëkk bi waaye loolu nekk mbir mu doy waar nekk mbir mu doy waar ndax ñoom war nañoo génn dëkk bi te itam na nguuram yaatu na te itam am na doole te itam géej gaa ngi ci seen kanam xamuñu nu ñuy def ba jàll loolu defoon nag e, jaaxle bu rëy ci Firawna e, ci yonent yàlla Muusa yonent yàlla Muusa daldi wax gaa yi nag ne leen nanu bàyyi daal ba bu guddee rek ñu daldi yollo su ndànk génn waaye wax na ni ba ñu njëkkee jóg pour dem dañu dañu gëlëm gëlëm nañu xamuñu fuñ jëm moom yonent yàlla Muusa e bi mu gëlëmee nag dafa laajte ne waaw e ñun de gëlëm nañu xamatuñu fuñ jëm am nag ñu ko wax ne ko yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam waxoon na ne et bis bu ngeen demee bay génn Égypte dana am benn yonent bu ñuy wax Muusa Imran moo koy jur buur bu kàccoor boobu ñuy wax na moom euh, mooy jàmmaarloog moom te itam ci ay loxoom lay alko léegi nag su ngeen demee bay génn dëkk bi na ngeen ma génnee dëkk bi yóbbaale na ngeen ma sulli ci sama bàmmeel yóbbaale ma yóbbu ma baytul maqdis mais fii bu leen ma fi bàyyi ndekki seen gëlëmte googu yàllaa ko def ndax bëgg nañu yéene ba nga xamante ni Yuusufa amoon na ko ci ñoom te mooy ñu génnee ko Égypte yóbbu ko Jérusalem loolu am tax ñu gëlëm yonent yàlla Moussa nag daal di retourné daldi eh, ñu wax ko loolu ne ko daal Yuusufa waxoon na ne daal buñ dee dem bay génn nanu ko nanu summi bàmmeelam yóbbu ko fële ca baytul maqdis mu laajte nag moom yonent yàlla Moussa ne kan moo fi xam bàmmeelu yonent yàlla Yuusuf kenn xamu ko et eh, muy wër nit ñi di laaj kenn par kenn di laaj kenn par kenn ba àgg ci benn màggat màggat mi nag moom moo ne xam na fa ñu suul eh, yonent yàlla Yuusuf mu ne waaye nag yonent yàlla yonent yàlla Muusa maa ngi leen yëgal ne duma la wax mukk ne la barab sàngam leen ko suul lu dul ne charte bi ma bëgg a chartanteeg yow dama da nga ko nangu mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëllëg foo dëkk ci àjjana ma ànd ak yow dëkk yent yàlla Moussa ne ko ah non non loolu moom duma ko def moom daal e wax ma rek barab bi waaye nag nekk fi di war lool naan la da nga dugg àjjana ak yooyu kooku moom duma ko def soxna si ne ko ah kon de duma la ko wan yàlla daal di yebal jibril ne ko demal nga wax yent yàlla Moussa ne ko na ko nangu na nangu charte bi ko soxna si wax boo lëgee ñu bokk ñoom ñaar dugg àjjana te fu mu nekk fa la soxna si di nekk yontu yàlla Moussa daal di nangul soxna si loolu waaye ndigal li mu ngi jóge ci Jibril Jibril jële ko ci borom bi bi mu ñëwee e, ne ko waaw kon nag nangu naa ko ëllëg fu muy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yenu ndax aw ma tànk yu ma doxe ñu yenu ko waaw ci guddi gi lañu dem soxna si moo ñëw ba ci niil bi waaw ci biir ndox mi mu ne leen fii lañu denc yonent yàlla yusuf waaw yonent yàlla yonent yàlla Moussa daal ñaan ndox mi di àndu fekk boobu ndox mi sax muur na bàmmeel bi ndox mi di àndu di àndu ba mu leer waaw ñu gas bàmmeel bi gas ko gas ko bu lu njëkk fajar di jot génne nañu euh, yonent yàlla yusuf ci bàmmeel bi ba yenu ko war a génneek moom dañ ko dañuy yenu eh, bàmmeel bi rek bi ñu yenoo néew bi rek lañu xamaat yoon wi nag xam fi ñuy jaar nga gis ne loolu kon xikma yàlla la ca leen xamee yoon wa nag daal tegu ci yoon wi nag wara nag génn dëkk bi dem nag euh, wuti nag fa leen yàlla yebal mbokk yi histoire la boo xamante ni tabaarakallaahu gudd na te kenn mënu koo ndëxëñ ndax li ci làmbu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg koo génnee nag et tabaarakallaahu ci kemtalaayu suñu dégg-dégg ak kemtalaayu suñu gëstu